au bout de six mois c'est clair. tu as renoncé même si décret bi su génneeg su génnul au bout de six mois c'est acté. nga mënoo ma laaj pare gu ma expliquer samay laaj samay nga ma bëgg a ma waranteeg ki fi teewul dama ni décret bi ko bind. Hmm? dañ ci ne rupture de lien d'allégeance. Hmm? cas boobu dañ ko prévoir kaw rupture de lien d'allégeance. Hmm? naka lay demee kooku forcément demande bi rek taxul mu dem. wala may fii ñëw liiraat naa ko ay constitutionnaliste liir nañ ko ñeneen liir nañ ko du ma weranteeg keneen dama ni bu ñu bindee rupture d'acte d'allégeance mooy procédure bi dañ ko décrire te loolu la ñu bind ci décret bi rupture de lien d'allégeance avec la France pour que am na yeneen cas yu ñu prévoir yoo xam ne da ngay def déclaration rek moom dafa jaawale mais bëgguma nekk fi di werante <laughs> rupture de lien d'allégeance boobu dangay def demande mun nañ la ko bay muñ la ko bañ a may parce que bu doon defee da ngay def déclaration rek mu mu yem ci mun nga nekk militaire français wala nga nekk ambassadeur France wala nga nekk un un un dans les armes les plus secrètes en France. Mhm. nga ne def naa déclaration rek dem naa suma yoon liggéey li beneen réew. France xam nga ni du réew moo xam ne caaxaan dinañ bàyyi nit rek mu neex ko rek ci anam yu ko neex mu dem dafa am cas yu ñu prévoir mooy. cas mineurs yi nga xam ne ñoo ngi doog a majeur wala cas extra ay cas yu raar la kooku déclaration doy na mais ki nga xam ne mu ngi dund mu ngi mu ngi nekk nationalité française am plus de quarante ans mun a am ay responsabilité ak ay secret yu mu yor ci biir France mun a am ay obligation yoo xam ne France mu ngi mu ngi ko teg ci ndoddam mënuñu ko bàyyi rek mu def déclaration rek daw ba loolu euh, euh, dalul xel quoi. oui mais pourtant ñoom ci seen texte. pourtant ñoom ci seen texte c'est ce qu'ils disent. c'est ce que maître discuter ci kaw kii wala. jama ni non mais mais mais mais Thierno également. c'est pas vrai donc on passe maintenant. vous vous croyez à ce que ce que maître. non non non je je dis que il s'est trompé. on est en train de d'éclairer la lanterne des Sénégalais. ah da nga wax benn affaire. kii ñëw deux personnes que ça soit Karim Wade ou maître Abdoulaye Tine ñëw wax autre chose. non je donc dis encore une si la dénonciation si la euh, par à contrario et foofu laa ciy ne ci point boobu à contrario bu doon declaration bi dina suffire du produire un décret à contrario te li ma wax mun nga ko bañ dégg mais da bàyyi ma eggale ci loolu ku nekk mën na ko dégg mënoon nekk français wala sénégalais nekk militaire sénégalais nekk sous nos drapeaux def dem New York toog fa def benn déclaration ne renoncé naa nationalité sénégalaise Sénégal nangu ko loolu dalul xel wul xel benn cas la jël bu ko généraliser cas boobu nekkut boo gisee ci décret bi ñu bind ci rupture de lien d'allégeance procédure boobu dañ ko prévoir bu la neexee après naa la ko envoyé naka lañ rupture de lien d'allégeance fi di demee ba décret génn moom kaawum décret moo war a génn tant que décret bi amut rupture boobu amagul benn loolu tax mu produire décret bi d'ailleurs comme preuve ah. bu doon loolu day produire day produire de produire demande am rek ak les les les textes et les références au texte xam nga loolu vraiment du loolu moo ñu fi indi li ñu fi indi mooy. li ñu fi moo indi mooy non dañu sauter un point essentiel de ma démo démonstration. c'est quoi le point essentiel mooy déjà en 2019. oui def na déclaration ni moom il n'a il n'a une nationalité exclusivement sénégalaise c'est pas le vrai loolu boo waxee ci conseil constitutionnel. loo xam ne dëppawul ak li am loolu parjure lañ koy wax au moment où il déposait en 2023 26 décembre 2023 il déposait son dossier de candidature il savait qu'il n'avait pas la nationalité française d'ailleurs dans son titre il a dit j'apportais la, la preuve formelle pourquoi il a besoin d'apporter une preuve formelle pourquoi il n'a pas amené qu'une pourquoi indiwul rek déclaration moo ko ci wolof ñëpp dégg bu newee damay indi firne peut-être pour clore définitivement ce débat bu ne damay indi firne bu bu gën a leer mooy lii kaawam mooy kaawu renonciation à la déclaration à demande express ñu génne ko décret li ci doy waar kay mooy lu tax ñu defal ko décret du 16 mars 16 janvier 2024 pour que mu mën ko dugal ci dossier conseil constitutionnel d'abord foofu dañ fay taxaw xam nga depuis le 26 décembre. Mhm. kenn amatul sañ-sañ dugal sa dossier yëpp war na mot. amatoo sañ-sañ dugal beneen pièce ci dossier conseil constitutionnel bi amoo sañ-sañ retiré ci da wax ci. Mhm. le 12 janvier conseil constitutionnel arrêté liste provisoire ci jamono yooyu bu newoon man amaguma sama décret que naa leen indil décret. bu boobaa conseil constitutionnel bu arrêté liste provisoire bi du ci bokk il a fallu ñun ñun def déclaration boobu pour que mu ne enfin j'amène la preuve le décret conseil constitutionnel va apprécier naka la France mu ne nii day arbitrer suñu campagne électorale ak suñuy élection di produire ay pièces à la dernière minute à l'ultime dernière seconde pour ne kii war na bokk. mais est-ce que arbitrage la. est-ce que d'où euh, parce que aujourd'hui euh, peut-être c'est un pays c'est un pays de droit euh, su Karim defee la demande wane ne que quand même y a euh, dafa am benn coow bu juddu fële ci Sénégal et qu'on a besoin d'avoir des preuves par rapport à ça si s'il s'il fait cette déclaration automatiquement peut-être euh, l'État français peut répondre en ce sens. Ah mais on pose des questions on veut juste comprendre et que Sénégalais ñu parce que quand on entend votre version suñu déggee version wu ñeneen. même parce que on a quand même eu à entendre beaucoup d'autres versions ñu dem ci le site français qui dit que pour déclarer pour faire une renonciation de de de de nationalité euh, si la déclaration est acceptée euh, en absence de réponse dans les six mois suivant la date du récépissé cela signifie que la déclaration de perte de nationalité française est enregistrée et c'est la même chose que ce que Maître Tine a dit. non, ça veut non, dire non, que da ngay toog sa kër tu es sur un site internet. si bien sûr tu n'es pas concerné par, par la fiscalité nga toog sa kër sur un site internet tu enregistres la demande comme quoi tu veux perdre ta nationalité si tu es de mère ou de père français d'accord soo ko defee dans les six mois même si tu n'as pas reçu de réponse ça veut dire aujourd'hui que la déclaration est actée c'est ce qui a été dit Néné euh, Aïcha c'est une question c'est une question aussi je peux vous envoyer aussi un document parce que da nga lire benn cas et c'était le cas de Karim Wade non non non xam nga da nga may poser question ba pare juger atténuer c'est le cas donc yow da nga jël position. mais non. mais da nga jël position <laughs> mais si da nga jël position je suis vous m'avez posé une question je suis en train de vous répondre. d'accord laissez-moi vous répondre. allez-y. il y a plusieurs cas de figure. Mhm. de perte de par renonciation mun naa la liiral un texte long mais c'est pas le débat ici. Mm. moom il n'est pas dans le cas de renonciation. loolu tax ñu defal ko décret. il est dans le cas de perte de lien d'allégeance texte yaa ngi nii yi ngay liir mun naa ko fi lire mais du loolu moo ñu fi indi man indiwuma fi pour ay débat juridique le conseil constitutionnel la premier cas la perte de la nationalité par déclaration mu ngi nii deuxième cas la perte de nationalité par décret donc yow mu noonee benn cas moo am non non j'ai euh, may déglu quoi hmm. puisque lire nga ay kii mu noonee benn cas moo am te munoo tranché fii yow ni que cas bi cas par déclaration la war a mun a nekk ki ko wax tamit xam na ni waxul dëgg. dafa far ki ko wax xam na ni waxul dëgg dafa far. texte yaa ngi nii mun naa leen ko bàyyil mun nga ko poster ci site bi ku ko bëgg liir liir lire xam nga Sénégal mooy problème boo xam ne. Mm-hmm. mooy dañuy bëgg toujours di yóbbu débat bi fu mu nekkut. dafa am texte par euh, perte par par par boobu nag. mooy wax effectivement on te te loolu tax ñu def décret par lien li libération des liens d'allégeance et le texte français prévoit que la demande peut être refusée ñële te par déclaration mun nañ ko bañ a refuser duñ ko refuser sax dañ la koy bàyyi rek boo toogee tontuwuñ la sax mun nga dem. mooy dans les six mais mais am na ñoo xam ne bu ñu defee seen demande mun nañ la ko bañal <laughs> parce que mun nga nekk quelqu'un un français. ki détient des secrets nucléaires qui détient des secrets français stratégiques ne damay def déclaration dem toogi Russie def sama déclaration nekkatuma citoyen français yóbbaale ay secret nga dem ne France dañu kii ba loolu ku la ko wax sax waroo ko nangu sujet boobu dañ ko bàyyeek ak si yi dinañ ci tranché moom dafa am décret la seule preuve qu'il la donnée au conseil constitutionnel actuellement mooy décret bi pourquoi deful ni j'ai ma demande depuis deux mois ou six mois on m'a pas répondu donc en vertu de tel article tel article je je, je au ma truc euh, ma, ma ma ma ma candidature j'étais plus français n'écoute et si c'était le cas mais depuis 2016 <laughs> depuis 2010 entre 2019 ba léegi décret amoon na pourquoi c'est le gouvernement actuel moo ko defal décret attends gis nga cette république là c'est pas une farce ay gars yu toog fa di di ñu di leen liiral ay bout de benn benn article euh, décret wala benn ay loi française di bàyyi yeneen yi pàcc yi pour nax sénégalais yi pour dóor leen ay marto parce que dañu far. mun nga nekk maître. mun nga nekk moi j'ai un j'ai de conférence en droit constitutionnel. qui est mon qui qui a écrit tout ce que j'ai écrit c'est pas moi qui écrit. maître de conférence en droit constitutionnel qui a fait ses études en France qui a enseigné dans des universités françaises bu toog fii ci Sénégal moom mooy déglu bu doon xam naa ne problème boobu naa ko indaale avocat mooy lan avocat day lay lu nekkut avocat daf koy wóor ni lii nekkul mu lay ko am na après ñu newuñu ci loolu xam nga lan la ñu ne <laughs> mooy 2019 mais qu'est-ce qui s'est passé donc en 2019 ba conseil constitutionnel. Euh, euh, euh, parce que sa candidature était invalidée pour une autre raison. oui mais n'a pas parlé toujours de de de de de de nationalité. Il faut cette fois ah, ah, également. ils n'ont pas parlé de de mais bu fekkee ne que la liste n'est pas encore définitive le vingt le le le candidature yi di définitif. ou di définitif oui on veut savoir pourquoi. parce que conseil constitutionnel dafa nii. ce qui n'est pas le ce normal jàpp naa ni loolu normalul conseil constitutionnel bu ñu ko joxee élément mu nekk ci réewum Sénégal dégg débat sur const nationalité wu ay candidats jàpp ni am na ay ñoo xam ne <laughs> am nañu ay yeneen nationalité war na ko ca càmbar gis ngeen moom ci boppam nee na am na ñeneen ñu am double nationalité waaye man duma ci àddu maanaam am na ñeneen ñuy vuyeleel constitution réew mi waaye dama leen di protéger moom Karim Wade laa bëgg a wax ci texte bu mujj def bi donc conseil constitutionnel dafa ni candidat rek moom mooy def réclamation ba ab ba candidat deful réclamation du sax recours dañ koy tuddee recours mais xam nga ni